de jërëjëf euh, Abdoulaye Diop jërë ngeen jëf internautes yeeg auditeurs yi déglu RFM quatre-vingt-quatorze point zéro yéen a ngi waat seen journal des faits divers xalaas ànd ceeg par pass euh, ànd ceeg passe partout ci biir RFM quatre-vingt-quatorze point zéro ok Maysa Mbaye ñu ngi lay siyaar bu baax yaa ngi am jàmm paas sama waa ji maa ngi lay kontaanee. Euh, sama waa ji Noor maa ngi lay nuyu bu baax a baax. lépp jàmm maa ngi lay ziar la kontaanee di la ziar lu bëri. neen def ak coono yi sant nañ bu baax a baax nuyu naa la Abba nuyu suñu auditeurs yeeg internet ziar ñëpp di nuyu ñëpp ñu ngi déglu ci waxtu wi fépp fu ñu mënti nekk ci réew mi ci bitim réew di leen ñaanal jàmm te di ko sàkk ci ñoom tamit. ci am na solo donc ànd ceeg euh, partenaires yeek auditeurs yeeg internautes yi ndax euh, ñoom ñëpp ay la ñu waaye commencé li nga xam ni moom mooy euh, Optic Vision plus Sénégal Optic Vision plus Sénégal indi ay lunettes yi nga xam ni moom moo gën wax naa ne ay lunettes yu yi nga xam ni moo mën ay vision de près ak ay lunettes vision de loin xeetu lunette yu baax yooyu yëpp nga xam ni tarkal la ay photogré ak ay li nga xam ni moom mooy anti reflet ay lunettes yoo xam ni ay monture de marque bokk na ci marque yi ay Ray-Ban ay Ricoh Mirado ay ak yeneen i xeetu marque yoo xam ni Optique Vision plus Sénégal rek nga ko mën a dem euh, ba daal di ko fay am am na fi nga xam ne moom ca Dakar am na fi nga xam ni moom mooy euh, ca Mbour ca Carrefour bu Saly am na ca Kër Mbay Fall waaye am na fi nga xam ni mooy Touba en face euh, Kër Serigne Maam Mortala hmm, loolu nanu ci bàyyi xel bu baax a baax wala ngeen woote ci numéro yi yaakaar naa ni am na 33 821 51 54 57 wala 33 876 61 03 yooyu ci ay numéro li nga xam mooy optique la Mion wax naa ni mooy téléphone bi nga xam ni tarkal la moo gën fi ñu toll nii Mion moom la askan wi yëpp bëgg Mion ci ay photo Mion ci ay caméra Mion ci ab batterie bu baax Mion ci ay ziga yu bare bare bare bare bari euh, demal ci xuma et frère euh, sama waa ji biram xuma boo bëggee million rek loo ci bëgg rek euh, mën na la ko jox ak yeneen distributeurs yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal yëpp Kayar eau boo xam ni moo gën a oyof Kayar eau boo xam ni moo gën a neex eau Kayar eau boo xam ni c'est vital xam nga dañu naan oh, eau incolor geek euh, inodore geek euh, mm. sans col yooyu yëpp dañu koy wax waaye eau Kayar gi moom moo tax ñu koy wax lu jar a bàyyi xel vite fait euh, gamme la goo xam ni waa Kër Serigne Touba Fall et frère ñooñu ko indil bu buñ ci yemoon sax mu neex vite fait ci garabu yoo vite fait bii ray mbóot vite fait ci xeeti baax baax yooyu nga xam ni yëpp indi nañ ko goo xam ne moom la ñu dippee king king aloe vera king ak yeneen i parfum yoo xam ni waa kër Serigne Touba Fall et frère ñoo ñu ko indil jërë ngeen jëf kontaan nañu ci yéen bu baax a baax ñii ñooy suñuy partenaire yi nga xam ne ñoom la ñu àndal ci xalaas gi passe partout. jaajëf waay jaajëf waay. Abdoulaye Abdoulaye Diop boo ko ci partenaire yi. ñu doxal ci xalaas gi Abdoulaye Diop kuy seetaan la auditeur la rek. maa ngi jégal de. technique gi sax par yenn saa yi ni mu koy téye du ma neex. day téye technique moom may sa mbay gi yaayam toog di leen xaar émission bi war a commencé trente da nga leen di xaar ñu dem doxi koo xamoo yan soxla la war a doxi. doo xam sax da ngay génn sa kër nga tàggoon ni yaa ngi liggéey boo ñëwee ci liggéeyukaay bi toogal fi ngay liggéey. doo dañ lay wóor pour nga liggéey. doo xam sax Ablaye Diop ak Maysa Mbaye xaw ma xeetu liggéey gi liggéey nii xeetu liggéey la. dañ lay wóor pour liggéey seet la ba gis la tey kenn seetlu la Ablaye Diop tey Maysa la lañ doon seet mais yàgg nañ fee toog di seet Ablaye Diop. mais tey seetuñu la. démb ci mujj waaw neen sa papa ma maa ngi koy ziar baax ku baax la sama papa la mais boo defee dama koy wax tamit <laughs> yàlla baax na ayca classe gi njëkk lu mu wax. su mhm. abaa booy dem bi kii bloqué woon Tunisie xam naa ne solution bi ñu am. Ah. waaw commencé am solution. waaw. xalaas nga wax ci. heure bu baax bi. nga naan solution commencé na ci mais nag mais nag dinañ ñëw xam naa ni après dinaa jokkoo sama waa ji ñu ñëw ci benn lu xaw a yaatu. Mhm. ci Tunisie sur Sénégal yi conditions yi nekkee ak yi ñu fay duggee aussi. Mhm. parce que xam yenn dëkk yi. yu ci bëri ay sorties libres en fait. léegi nag gars yi ñoom pour ñoom dañuy dem dagg billet rek dem. te xamuñu ne am na yenn yenn kii yoo xam ne dañ koy exiger côté argent de poche ak. côté ay réservation ak affaire demee noonu. donc boo demee foofu mun ngaa ba a dugg. yooyu dinañ ci gën a ñëw indi ci ay leeral dégg nga. Mhm. abaa dañuy dem Linguère. balaa nga fay dem. waaw euh, directeur yi. Mhm. nañu dugg ci page Facebook bi. waaw xool li xale yi di wax ci xalaas gi. waaw ah. passe partout xalaas bu teelee commencé. dafa mel ni waa réew mi euh, seen xol yi dafay féex. day neex parce que fan yi euh, ñu ngi koy bind ci commentaire yi naan lii la ñu bëgg ci xalaas teel a commencé ñu am xalaas ba mu doy. donc vraiment directeur yi nañ ko déglu xam ne heure bii euh, ci fan yi ni ñu koy doxalee nii baax na. dañuy xëy nag cenc tànk yàlla ci tànk yi ngeen nekk ni baax da ngeen xëy cenc mais bis bu nu cencatee ah. may ñaan internet yeeg auditeurs yi nañu ñëw taxaw fii ci buntu rajo bi yii yëngal nañ ko jaat ver taalaat waaw nan yëngalaat waaw <laughs> daal damay ñaan parce que bu dee tamit nit da nga askan wi ñoom ñoo moom ba nga xam ne askan wi la moom da ngay xool neex askan wi nga def ko. RFM TFM askan wi ko moom ñoo ko bëgg. Mhm. yenn saay moo tax ñu ñuy mer par yenn saay ak yooyu te yii tax ñuy meer heure émission yi ci la bokk. xalaas gi nga xam ni ñoo ko moom nga ah. a àddina ko moom de. xalaas gi day yëngu. ba amatee rek ñoo leen vital. day yëngu ba ca avenue ba nekk euh, Cincinnati. fépp la yëngal côté station ba noonu. ah am nga ay nit ñu bees de. mooy yàgg na. Ah, am nga ay nit ñu bees. moom taay moom du am ay nit. nuyu Doro mu baax bi. suñu waa ji Doro ngay nuyu bu baax. xippil xool ah Doro ku baax. xool ah, ku gisul yaa ngi dégg. te da ngay gis force. dañ dem papa ja doom ja fetal la ko dóor ci biir mu faatu. Ah, kii ni may joxe xalaat si nii lan la ci kuy soog a yeewu naanagul café. transition. wal jaar mënuñ ñaari kaas café. waaw dina indi café gi mais li ngeen papa ja doom ji. par pistol la ko dóor balu la ko dóor mu wàcc. te te te te te te c'est pas la première fois paa bi di def acte yooyu noonu. ci li ñu jot a gum ci ay xibaar ko gëstu nag mais suñu waaj ji Baye Assane tam ñu nekkal Linguère moo ciy ñëw. yow li ngay wax nii Chicago laa ko doon dégg. Brooklyn. Sénégal fii yow Aba Sénégal. génne baru pistolet dóor moom. Aba Sénégal kon yow yoroo fetal. mu ne. yoroo fetal. yow laa wax man militaire laa wala damay guerre wala yow lan la. <laughs> man de jàmm man de wax dëgg yor naa boobu. ak gaaw a baalu. man yor naa de. boo génnee ma daw. dëgg yor naa moom. nañ déglu Ablaye jëye ji am ci weendu guubu ci commune bu Thiel département bu Linguère moom la ñëpp di waxtaanee jamono ji ndax jëf ji ñi mu jéggee dayoo xale bu góor bi ñu boom te ay atam toll ci ñaar fukk ak ñaar te waajuram def lu ñu mel ginnaaw bi mu ko soxee bal jëmale ko ci biir bi te mu jaaree fa faatu néewam nag jamono ji mi ngi ci morgue hôpital Magatte Lô bu Linguère te ñi ngi taaxirlu dogal bi nar a tukkee ci waa kër docteur ànd ceeg procureur bu. Louga ki ñu jàpp ni moo faat doomam mu ngi ni mër démb ba tey yóbbaale sax bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu taataan fetal gi nga xam ni moom la boomee doom ji wante wut waa brigade gendarmerie bu Linguère ñi ngi def seen kem kàttan ngir teg ko loxo bala yàgg dara ci fàttali sax ñi ngi ñuy xamal ni gi yoon duguleet ndax reyoon na fi nit ci at ji si ginnaaw daal di daw comme ni mu ko defee tey jii moom mi nag deful tey lu du xañ doomam ji mu bu yàggul rek la am soxna boo xamante nii tey jii dafa nekk jigéen ju wérul Baye Assane Diaw Linguère. dégg nga Aba. Linguère la xewee ñuy gërëm bu baax a baax Baye Assane. Mm. Euh, moo toogal euh, groupe Futurs Médias foofu ca euh, Linguère. li doy na waar de. waaw mais dinañ ko topp nag. waaw dinañ ko topp parce que yaa ngi dégg ci wax ji mu ne c'est pas la première fois Pape def lu mel. waaw dinañ baax Aba. waaw sa gars yi ñu ngi yëngu de. gars ñu ngi réagir waa Marseille ak waa Suède ak. Hmm. ñu wax ci heure waaye ñu wax ci nuyoo yi nga war di nuyoo. waaw rek ngeen nuyoo. waa ah Suède da ngay da ngay dajale Europe. États-Unis euh, Afrique. ñu nekk ci sous région bi. waaw comprendre nga Australie ña ca Dubaï ña ca Arabie Saoudite. Hmm. ñoom ñëpp ñu ngi di ñaanal jàmm di leen ziar. mënuñoo lim ñëpp waaye daal. ñu ngi anticiper tamit ci coupe du monde bi ñu ne on va la RFM ci coupe du monde bi. lan on va Malal Junior Diagne et Cheikh Tidiane Diagne ci coupe du monde bi. ak sama beneen papa ji daan. waaw. tas tas Tassirou waaw waaw waaw waaw waaw Tassirou parce que. sama pap nga ne. nu muy def nga ne. fii buy kii. waaw ah. comme su ma daan naan laal kii laal na ko laal laale am njaay joxal jóob ak yooyu. waaw ah. surtout daan naan c'est du jamais vu c'est extraordinaire moom moo naan xam nga ñun ñi nga xam ne ñun dañoo dër dañoo baax ci société. wax ji bu gaawee ñun dañ koy équilibrer. dañ koy yéexal mu tolloo mais pas bi da ngay gis ni malal di accélérer am njaay joxal jóob kenn musul gis lu mel ni wiri ni ko seeta jaañ naan oh la la la paa bi naan xalaat ci topp nga ne lu mu wax. waa Mali Mauritanie ak Mali ci sous lañ bokk ñu ngi ziar ñëpp. ñu àddina àddina ngeen di nuyu. ñëpp de ñëpp yàlla na ngeen am ay Mion am ay Haut Kayar. vite fait yi ci seen kër yi yoo yeeg yëpp ngeen mën di ko rey. yàlla ngeen am dolka ah, yàlla ngeen xeeti baax baax yëpp daal yàlla nañ ko yàlla ngeen am ay lunettes. optique vision plus Sénégal di gis fu leen neex live bu commencé ngeen mën a seetaan am jàmm di màjj màjj nañ jëm ci xalaas bi. abaa abaa xalaas bi de kaf la commencé. waaye ba mujj dugg ci lu loo xamante ni ndaw si dama dama dama dama changé voix bi ba mu xaw a ruuk quoi parce que affaire bu doy waar lay wax nii. xam nga dem ñu ngi fi indi benn cas euh, Ibra sëriñ bi doon nax ko baayam ko quoi ci affaire jàlleen ci affaire sëriñ ak yooyu. Mhm. ndaw si du ko def jëkkëram dafa nax jëkkëram ci affaire sëriñ ba lekk na ko lu tolloog dix millions. Hmm? waaw mais après la xew ci biir ci taf bi loolu moo doy waar a baax. da doon foo ba lekk dix millions. parce que moom nekk na jëkkëram jëkkëram nekk na borom daraja. Mm-hmm. mais seetlu na ni jëkkër ji addunaam lépp sëriñ la. Mm-hmm. jëkkër ji talul talul talul njabootam ndax sëriñ sëriñ wut xaalis. Mm-hmm. mu xool nu muy yokkee xaalis ci wàllum sëriñ ak yooyu noonu. léegi nag moom dans un premier temps bi mu gisee waa ji ci téléphone bi muy dama ko ñëw dafa jàppoon ni day doxaan mu fexe ba pirater WhatsApp am di jot ay message mais message sëriñ lay jot. seetkat yi affaire yooyu mu am idée jaar ci loolu. ndax ko ci. wut benn téléphone wut benn puce message ko ne ko samay rawaan ñoo ma jox sa numéro nangam nangam commencé ko ci seetal nag xam nga sa jamono bu lay seetal moom. da gis ay ah, yàgg na laa gis. bu xëyee dem bu xëyee dem bureau am. Ah, jël lépp bu la seetalee dina la gis la waxee say taas ak say cimpi tàmpa <laughs> sa jabar bu lay seetal dina la gis te eggalil. <coughs> bu xëyee dem bureau jël beneen téléphone laxas mouchoir woo ko. yàlla bu mu la seetal bari la fan yi amul taxulaa am performance noonu am na ay ñaan yoo xam ne mën ko ñaanalee nga gën a am da nga koy yëg da ngay xam ni kii xam na la ngay xam kii mu ngi lay gis yëggalee fan yi sa match yi ngay gis ay match amical la jéego goo match professionnel da gën ngaa see match professionnel wala ay da ngay nii rek fan yi gën nga am victoire nga xam ni match yii yëpp da yaa ngi koy ñàkk nga xam ne yaay Liverpool yow fi mu toll nii. dégg nga. daal ci bi dégg na mu koy laaj ay sarax yenn saa mu dugg ci internet bi télécharge ay xar yónnee ko comprendre nga waaj di yónnee di yónnee. ba dix millions di yónnee. léegi nag ban ndaw si dem ba bëgg caa génn nag ci la découvrir ci waaj lu gën a garaaw. Hmm. lim doon xalaat. acca di seen euh, thème bi deux yi daf ma xaw a kii ndax man moom damaa def li mel sama jëkkër wax dëgg fa yàlla te rëccuuma ko nag rëccuuma ko ndax dama ko fekk si li ni loo ko wax lu du sëriñ nga mu ko dafa bëgg sëriñ tellement dafa mystique ba sëriñ bu ko waxoon tey jii na ma fase sax daf may fase ndax sëriñ si jaral na ko ak yokk xaalisam te yàlla may na ko xéewal macha allah waaye du doylu xam nga yàlla moom yëpp yoo may seytaan ko mu ne kii li muy dëkk ci sëriñ bi li mu ciy soom ak alal bi mu ciy def te mu mënoon kaa def ci man ak sama ñaari doom mu ne xaaral kii foog ma safta ko pexe xaw ma nag sama idée boobu foog la jóge ma dem jënd téléphone bu bees jënd puce bu bees def ko ci nekkal ko ci ak bu xëyee ma xëy sama côté prise de bi ak bi ma ñëwee di ko daan sëriñ bi en fait euh, dama piraté woon compte WhatsApp bi donc du coup dama doon euh, jot ay message am xam nga euh, message bu dugg rek moom bu ko jotee man dama ko doon jot xam nga moom daf ma ci wa euh, lu wax ma ne ko xam nga affaire yooyu noonu xam nga yaa ma a xam boo ma da ngay naan kii femme naïve la et tout parce que man dama ko doon gis tout le temps ci téléphone tout le temps muy jaabante dama ko ñëw ma yaakaar ne woon jigéen la affaire jigéen la quoi mais après bi demee di message am ma xam ne du jigéen kii waxu sëriñ rek lay lijjanti mbirum sëriñ rek lay lijjanti xam nga ma envoyé ko message xam nga ne ko man de dama toog xam nga samay rawaan wan ma say mbir affaire yooyu noonu samay rawaan ñoo ma jox sa numéro ma say mbir xam nga li mu doon waxante sëriñam yooyu noonu à travers WhatsApp li mu doon doon wax affaire ma jaari ko fa déjà xam viom ma wax ko ci euh, si ci seet bi boobu ma wax ko ci loo xamante ni sëriñ mënul woon xam loolu ci moom est-ce que tu comprends ma wax ko ay wax yooyu noonu ba convaincre ko xëcc ko mu ñëw xam nga soo ka tegal ay affaire naan ko mun naa lii dinaa la defal lii sarax bi nag ci seetlu bi ci seetlu bi foofu laa ko gañee foofu laa ko gañee carrément ndax wax naa ko ay wax sa jabar li sa doom li xam nga fii nga jaar lii nga def ak lii say parents jaaree naa ko fu ne jox naa ko ay information yoo xamante ni moom moo ko mën a xam wala wala wala wala entourage am wala wala moom déjà yi mu ko waxoon sax entourage am sax mënuñu ko woon xam ndax wax yu muy wax ci WhatsApp bi wax yooyu laa ko delloowaat jukku foofu laa ko amee woon nag ma nekk ci moom di ko wax ay wax di ko wax ay sara xam nga ko maa dëkk ak moom daanaka xam naa lépp du ko lu ma ko wax mu gëm ko mu may yónnee xaalis dama yónnee xaalis mu naan ko machine noire lay def affaire yooyu noonu mu naan ma looloo gën a gaaw sax. wala di ko defloo ay affaire doon naa bu luweloo ko chambre ne ko xaalis bu ñëw rawaani fa lañ koy jaaralee da ngay jënd valise bu bees dugal ko ci néeg affaire yooyu di ko génneeloo ay sarax heure bu ma envoyé pour sarax ma dugg ci internet bu xool xar bu baax wala xool ki yónnee ko ko naan ko gis nga xar bi laa jënd ko. dégg nga. Mhm. léegi nag Aba ci biir taf gi nii nag dañoo dem ba ci biir nag am na ci xew. am na ci xew parce que ndaw si. ñu ngi koy wax mu ko jox ay xaalisu sarax dem na bëjël ko lu toll ak huit millions. ndaw si tàgg ko maanaam seetkat bi quoi ne ko damay dem Mali parce que proposé na ko mu luwee benn nekk rawaan dañ ko war a indil xaalis bu bari. Hmm, foofu ci biir néeg bi. bi mu ko tàggoo pour dem Mali waa jox ko un million na ko na paas comprendre nga bu duggee ci nat bi dugg ci affaire comme kii wu benn noix yooyu yooyu télésage ko yónnee ko ni ko maa ngi def liggéey bi léegi nag ba mu ba benn mu xaw ndaw a ragal nag mu bëgg affaire bi. comprendre mu woo ko ne ko affaire yi pare na mais pour nga jot ci xaalis bi dafa am benn sacrifice boo war a def waaj ne ko lan la munu ko xaalis boo jotee sa doom day génn àdduna sa jabar day paralysé waaj na ko d'accord na. auzu nga waa ji accepté na. soxnaam mu am handicap doom ji gaañu. waaw pour mu jot ci xaalis bi. nee na moom de façon bu jëlee ci xaalis bi dina a jabar ji ci xaalis bi. ndeysaan te dina amaat beneen doom. ndeysaan ndeysaan. léegi nag ndaw si affaire boobu noonu. waa xalaat na ni bi bu yegsee ci jour bi. lendemain bi moom mën naa faatu fa yàlla moom xalaatul loolu. balaa muy egsi sax fi mu toog ñu koy indi diggante bi bu doon dëgg la. waa ji moom xalaat na ni xaalis boobu bu see mën na cee wut oto oto boobu muy jënd di ko dawal balaa muy yegg këram moom mën na cee accidenté faatu. moo koy rey. baadu yi nga ne ndaw si nag wax jooju noonu. da koy traumatisme mën naa yàq addunaam. ci alalu adduna. alalu boo paree ñu déglu déglu. ñu dëkk ci moom di génnee sarax di génnee sarax moom daal mu may yónnee xaalis chaque deux jours bu ma toogee am benn idée bu ñëw sama bopp naan ko affaire bi lii moo koy tardé léegi léegi moom daanaka am na benn moment sax demoon na mënu ma bëgg naa reculer waaye mënuma reculer ndax li ma def pour affaire bi ñëw dafa bëri du coup yi may laaj nii bëriwul par rapport ak li ma joxe daal xam nga donc mënuma bàyyi mu sedd noonu foog ma dem ba affaire bi mag ma ne ko amul problème man nag ñun tamit ñu dem ci jeu boobu noonu ñu toll nag bu ci moment boo xamante ni euh, délai bi ma ko joxoon délai bi passé na gis naa ne commencé na découragé ma ne ko léegi damay demali ci suñu kii yi xam nga comme ça affaire bi dina gaaw mu ne ma amul benn problème ma yëkkati un million jox ma ne ma may financer sa voyage ma ne ko ok amul problème ñu nekk ci xoolal daal ci internet bi laa ko jàppee di ay affaire mooy image yu mel yooyu affaire yooyu di ko ko yónnee naan ko fii laa nekk di ko wax ay tuuru dëkk lu mu ko wax mu gëm ko moom daal li mu bëgg na ko am rek xelam wëlbati ko carrément te xoolal yàlla mi ma tiim xam ne musuma dem ci sëriñ sax ne ko defal ma lii wala defal ma lépp mu xaw a ñëw non jamais mais man ci am ci laa ko fekk damaa xam ne kii dafa bëgg lii xam nga souvent da ngay dégg ni ñuy naan diw def maa liggéey pour mu mun maa am may def li mu wax souvent du loolu sax day fekk moom mi ci boppam loolu la gëm rek ngëm-ngëmam nga topp rek noonu laa ko def nii def noonu def noonu def noonu mu dem genre ma lekk ci moom lu ëpp ay huit millions ma dem ma xam ne nag kii moom affaire yaa ngi bëgg kii man tamit affaire yaa ngi neex ci man mënu maa reculer xam nga pour arrêter affaire ma tiital ko ma ne ko ah affaire yi daal xaw naa dëgër nag léegi euh, sama rawaan yi dañ naa laaj ni ko da ngay joxe sa jabar wa ilaa nga joxe sa doom xam nga léegi mu ne amul benn problème léegi wax mun nu muy demee ma ne ko euh, affaire buñ ko defee sa jabar day nekk handicapé à vie sa doom day dee mu ma amul benn problème sama doom bu deewee façon dinaa amaat yeneen doom sama jabar aussi bu ma demee ba am li ma bëgg mën naa ko compenser ci xaalis waa xam nga te mun naa amaat beneen jabar ma ne ko ma ne ma ne ko nangu naa ma ne ko léegi processus boobu pour ñu commencer foog ma waa am benn problème ma ko laaj ñu joxe loolu ñu dem ci di dem ci di ma lekk ko ëpp ba sama jum bopp nag mu commencé tiit nag waaye taxuma lu kii la de damaa xëy bés rek na ko affaire yi ne ah ak man xaalis bi mu dugg na nii génn nii affaire noonu ma ne ko ah rawaan yi mënul nekk ndax sa jabar ak sa doom ñooñu ëpp ñu ëpp bopp xam nga buñ leen naree def dara yow mi sa dimu bopp yaay dee ma ne kon nañ bàyyi noonu ñii ko def lekk ci mënul ëpp dix ci sama bopp di ko def ci sama doom affaire kii sacrifice humain bi moo ko waxee sa jabar ak sa doom wax affaire bi traumatisé na ma tourna des jours et jours di ko jooy di ko xalaat ba sama liggéey sax daanaka mënatuma ko woon parce que affaire bi daf ma choqué de tel euh, point que man je pouvais pas imaginer que moom xaalis jaral na ko loolu ba xalaatoon naa divorcé du ma la xalaatoon naa divorcé dem affaire yooyu noonu mais non je me suis dit moom ba fi ñu toll noonu bi mu daalee euh, sëriñtu ba fi ñu toll noonu bu amoon sëriñ bu baax wala mu am sëriñ bu baax kon heure bi ma fekk ba mën a nii mais ñoo jóge fee xam nga naxee ko noonu terre à terre xëy na moom bu ko defee pour sama doom wala pour man ñu dee wala dara xëy na yàlla moo ci moo ci moo ci ànd wala suñu euh, dund foofu la ko yàlla waroon a jaar suñu dee. gis nga ba am ah. ci côté fi mu ko jaaree bu doon nit ku normal la kenn du ci d'accord mais gis nga ndaw si xëy na dafa am lu ko lu ko jaarale ci yoon boobu pour mu xam ba nit la nekkal. Mhm. amaana bu ko defuloon dina xëy rek moom dundam yàqu wala mu xëy doomam dee te kenn xam lan la. mais ñi seen sëy est que deeti na neex. mais dootul neex Abba c'est ça le problème parce que chaque instant yaa ngi toog di xalaat ne kii bis bu amee possibilité bii nii. daf may sacrifice dina mhm. surtout doom. waaw ah. sa jabar sa doom ndax alalu àdduna. man dama yaakaar ni nit day wuti alal pour. ak famille am. waaw dama yaakaar nit da ngay wut alal pour sa famille wala pour dundal sa wala pour sa di ci dund wala pour nga gën a mën a téye sa famille. mooy mais pas sa famille pour am alal après boo amee alal ji ci ngay xam ne alal faju daara. ma wax la ñaari mbir di ko gëm di nga fi bari de. te ñiy bañ ko wax parce que est-ce xam nga ñiy sacrifier nii at mu ne am na lu leen ay sacrifice yi di laaj. seen dund du neex xanaa déggoo ma. seen dund moo du neex alal dafa am noo koy amee am na ci ay conditions yoo koy amee sa dund dootul neex. parce que ñun war nañoo sant yàlla de. bu baax a baax a baax a baax. wérunu wérunu. waaw waaye suñuy nelaw doy na. da <laughs> ngay nelaw ba kontaan sa xel day daal parce que heure boo tegee sa bopp ci kaw lépp da ngay nelaw parce que maa xam ngeen am na ay milliardaires yoo xam ni maanaam buñ la waxee kañ lañ gëj nelaw mat na six ans. déggoo ma de six wax. ndax tamit waxuma la six ans dañ dul nelaw fi ñu toll ba ba ñuy dee duñ nelaw. nit ku def yenn yi pour ay sacrifice humain pour ay am alal ak ay yi sa jabar sa doom ay doomu jàmbur ak. moo tax looy dégg ñu naan la ay sëriñ bi daf ma sëriñ bi daf ma waa ji fu mu dem daan sëriñ moo ko nax ndaw si jëkkëram fépp fu mu dem daan sëriñ moo ko nax dañ koo takk nax ko fekk kenn def ko dara. moo tax man gis nga ay nañ génne sarax ak yooyu bu weesoo soow ak ndox ak biskit ay ceebu yàpp gi yëpp dama naa dinañ ko añee dinaa ko toog kër gi ñu añ ko. waaw non mais jox balaa may fàtte ah. moo duggee Kër Massar moom fi yónnee benn communiqué ba ki dem ba tey euh, Serigne Modou Seye dafa réer avant tabaski mi ngi dëkk Kër Massar doomu Talla Seye ak Mboose Seye ku ko gis na woote 78 121 72 86 78 121 72 86 wala 77 150 17 17 mu ngi numéro xalaas bi. waaye keroog yi ma xiyam paas. ndax yow mu yorob dara di nga dox ji di ko na gis milliardaire boo xam ni da koy romb ci tolof tolof yoo xam ni. wuy ma damay romb di falaale. keroog gi mu xiyam ab lay jub laa nar noos. nacional do président Roberto Colombo Santa Gringa Zoro do Vori Zoro Vitória Gori président da Live pela primeira vez président da Live mooy demari sori jara gar jara gar do capra sanga consonant 1902 sama ne pale ma xona yak la la pour la déclaration officielle du gouvernement national la France centrale le borsar sama jaar 1964 bab ju karbe wala 2012 Macky Sall bi 2012 ñam ñam ñaar bob ki wara bëgg jot président ko kala wara xale wata salaamaaleykum maa ngi siyaar de joxal tur beeg sant bi maa ngi lay siyaar bu baax a baax delloo na la siyaar maa ngi tudd El Hadj Diop yaa ngi tudd El Hadj Diop El Hadj Diop. El Hadj Diop. waaw di baykat waaw waaw waaw. El Hadj Diop di wootee fan ci réew mi. maa ngi wootee dëkk bu ñuy wax daal Ndiobène. yaa ngi wootee Ndiobène. Oh, waaw waaw waaw su ñu laaj li waral sa woote ci biir palais bi ci waxtu wi ñu toll. Euh, waaw woote bi euh, li ko sabab. Hmm. dañu di ay baykat. Hmm. yàlla dogal euh, baykat kenn gënu koo gëm yàlla. Hmm. moom mi jël gerteem def ci suuf. di xaar yàlla ji taw ngir mu mën a mën a jëriñoo. kii gëm yàlla e, e, e, foofu la yem. Mm-hmm. waaye nu seetlu ni daal fan yii. Mm. dañoo sooxe daal ci wàllum ndox. Mm. waaw sooxe gu ñu sooxe ci wàllum ndox nag. Mm-hmm. waraloon daal maamoon lu ma xalaat ndax comme comme comme comme Ndakaaroo ngi inondé. Mm-hmm. inondé du mooy ndox mu taa. waaw mooy ndox mu bari. waaw waaw waaw du Ndakaaru ndox ma taa na bari. waaw ndox Ndakaaru kay foo fépp comme géej moom foo jaar. waaw kay waaw kay loola rek laa lu ma xalaataloon président. Hmm, loolu ci xalaat. waaw li ma ko xalaataloon mooy. Hmm. ndéemal lu ngi jooy ndax eh, ndox mi bariwul lool lool lool. Hmm. wax dëgg yàlla ba nu ko gërëmee ba noppi i pont yi mu defar ak yëpp. Euh, damaa bëggoon daal mu wut récolte boo xam dana toll ci un milliard mètre. lan. un milliard uh-huh. ah, ci mètre di daa ko. bu ko defee bu ko sampee ci ndox moomu nga xam ni moom mooy euh, euh, euh, inondé ci dëkk bi ci Ndakaaru. Uh-huh. def ko direct ci tool yi nga xam ni daanu mën a béy sax béyum noor mën a béy béyum nawet bu ko defee dundu jar sax ñuy wut pompe di di di pompe ndox mi ngir taataay yi jeex day dem direct ci tool yi bu ko defee béykat bi gis ci boppam. Hmm. ci këram taawul gis ci boppam moom président mu gis ci boppam jàmm ni ñooy. <laughs> yow sëñ bi daal looloo doon sa xalaat yow. waaw waaw waaw xam nga ndox moomu taa dafay yàqu rek. waaw. te mën naa dem ba tal borom kër ya seen i kër bu ko defee lu jóg ñu ni président. ah waaw te amoo beneen idée bu dul wut ay ràkkol loolu samp ko Ndakaaru pour mu ñëw ca njóobeen googu. waaw léegi ndox moomu dañ koo mën a dugal ci avion du indi mënta ne ci ràkkol rek lees ko mën a samp jaar na ko ci suufu. yow tee nga man tee ngaa ñaan rek njóobeen di taw. ah. ma ne tey ngaa ñaan yóobeen am ndox jàmm. loolu la ñuy ñaan loolu la ñuy ñaan baaw naan nañ. def nañ lépp waaye ma gisoo fenn fu ñuy sampee raakol ci ndoxum taw mu wut si wuti dëkk ak dëkk. Abdoulaye Wade defu fi woon ba tey bassin kii rotation. bassin lan. rotation. bassin rotation li ngay wax ni danoo bok bu soreewul da ngay da ngay gas àll bi rek daal di ndox ma taajee ku nag yi naan ak xar yi de gi dem. Eh, loolu loolu bu gasee suuf si. yooyu bu comme ni ñuy gasee eh, courant ci suuf noonu nga koy gasee rek ba mu ci njóobeen. Eh, sëñ bi Diop. waaw. li ma naqari mooy njaayeen yi bu ñu la déggee dana ne njóobeen yëpp ndeke wérul. bu ma déggee xam seen buur wax na dëgg. ma ne ana looy tëjee. li may tëjee mooy. Hmm. lu mu gën a ne ko def. wala élection moom mi ngi ñëwaat. moom na woon xawoon lu mu gën a gaaw rek coupé ko bala ma lay coupé. votre correspondant peut-être. du du du ko du nu wootee de du nu wootee de. du nu wootee ndànk ndox mi ñëw. coupé naa la waaw baax merci d'écouter la radio Futur.